président Macky Sall ci boppam lay waxal ndax jàpp naa ne ci table bi yëpp xëy na maa ko ci gën a xam ndax gën a yàgg ak moom monsieur le président ñun day ba nu ànd ak yow gëmuñu woon ne fii la ñuy mujjee ak yow musuñu ko imaginer ndax maître Moussa Diop mii toog ba ci Cheikh Tidiane ba ci yow mi mille 2011 ñoo àndoon ne ca place de l'Obélisque sa soxna di fa maye sandwich di fa joxe ndox bind t-shirt non au troisième mandat sol ko mu ngi ci internet jour boobu ci lañu ñu boom Mamadou Diop yal na yàlla xaare ko àjjana ah ñu ànd ak yow ba fii ñu jàppoon nag ne wax dëgg yàlla mënuñu woon a imagine ne fii la mbir mi di monsieur le président l'heure est très grave nañ ne l'heure est grave mais est très grave monsieur le président bul topp wax naa la ko keroog ñii di la pousse ci lii nga dugg nii amul issue c'est une voie sans issue wax nañu ko Sénégal ñuy def la une de toute la presse internationale am ay mbokk yu ne Japon ancien collègue ñu naan lu xew ñu nekk Amérique latine ci dëkk boo xam ne on la l'appelait l'exception africaine l'exception africaine ba ci ni ñu daan traité les journalistes nga ne woon yow ci sax ay kenn du fi arrêté journaliste tey Sénégal on fait partie de dëkk yi nga xam ne moo ëpp journaliste yu ñu arrêté kon monsieur le président de la république nii nga jàmbaarloo ak say xale dégg naa nga ne vous savez vous battre parce que toujours dañ lay bu voyé ñun day jiwuñ la loo loo xeex ak suñuy ndaw jiwuñ la jiwuñ la loo xeex ak ñun 16 mois 16 monsieur le président defaraatal so toogaay defaraatal so toogaay fii ay terroriste newuñu fi man duma ma terroriste maag yow àndoon xam nga ma duma ma terroriste fii benn terroriste amul ci F24 ça n'existe pas li am kay mooy une jeunesse consciente et qui refuse aussi li nga ko bëgg a teg jëlal li yëpp nga teg ko ci suuf parce que di intéressé Sénégalais yi intéressé aussi yaay yi ñu doon ba ci maam yi mooy jàmm dellu si yoonu jàmm mu ngi ci sa loxo mooy d'abord nga teg affaire procès bi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne du procès ndax koo toppee yoon topp ko euh, menace de mort ñu ne la loolu amul la ko la waroon mooy nga ba ko mu ñibbi jëlal say juge comme xam nga ni ngay waxtaanee ak nga jël solution teg yëpp ci suuf mu jeex xam nga ni nga koy defee ñaareel ba nga jël kàddu ne troisième mandat bi kat xëy na mu ngi woon sama xel kooku sax mën nga koo bañ a wax ndax kilifa la waaye teg naa ko ci suuf. bu ko defee suñu doom yii ne ci biir kaso bi ñu bàyyi leen école a ngi waaj a jeex foog ñu def fi bac foog ñu def fi brevet foog ñu terminer seen seeni examen à l'université ñii war a dellu ci atelier yi ñii yor seen commerce ba ci ñi yor boutique mbagg na ci biti mën a dellu ci seen activité waaye nag sunu fukki xale yeeg juróom-benn yi nga xam ne seen bakkam rot na ci kooku moom kenn mënu koo paase waaye nag premier pas pas yii ñu la boo ko defee jàmm dellu si waat kon képp koo xam ne yaa ngi dugal sa loxo walla sa xalaat wala sa xel ci voie de solution voie de solution yaa ko teg procès bii ci suuf xam nga artifice yi ngay jaar juridiquement pour ñu jàll ci leneen ku ne doon candidat Ousmane ko doon kandidaa Mimi Touré doon candidat ku ne doon candidat Khalifa Ababacar Sall ku ne doon candidat yow nga wut sa candidat yow moom mënoo ko loolu la yàlla dogal. ndax nag dañ laa fal falaat la ñun président dañoo wàccoog yow dañ laa defal teraanga bu ne ndax mille 2011 nag bi jëkko woon ci opposition bi waaye sénégalais yi fal la 2019 ñu ànd ak ak yow ñun ñii ñu ànd ak yow ñu falaat la ci diggante bi 2016 nga ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs wër ko wax ko fu nekk moo tax keroog la nga wax ñu ci bëri comprendre am nañu comprendre li Moussa wax ne da nga ne ñun ñi àndoon ak yow xamoon nañ ne buñ la nee wii da ngay am troisième mandat loolu de mosuñu koo xalaat waaye man la ma jàpp mooy danga nga ne opposition ba nga xam ne ñoo doon wax ne boo amee wii da ngay def troisième mandat donc wax ci sax daanaka kenn comprendre waaye la ci yomb te ñëpp jàpp ko mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mooy sax situation donc monsieur le président l'heure et très grave il faut sauver le peu qu'il reste à ci lii nga xam ne moo la dese pour les huit mois à venir xale yii nga xam ne perte nañ ci seen bakkan kooku duñu ko baal képp ndax nag neuf mois la ñu leen ëmboon jur leen ñi ñun ñii ñëpp ne woon naa duma ci wax parce que vie privée la waaye dañuy interpeller madame la première dame dame la ñu wax une dame c'est une femme madame la première dame vous êtes une mère lii suñu xale yi di di di daj wax ci ak monsieur le président de la république ñu arrêté lii ñuy gis ñoo xam ne kenn xamul lu ñu doon kenn xamul policier lañ kenn xamul lu ñu doon gis nañ leen vidéo yi nekk ci ñépp di ko témoigner loolu mu dakk immédiatement ña nga xam ne def nañ ñaaw ñaawteef yooyu ñuy ut ñu dinañ leen topp ci yoon bu ñu leen topp Sénégal yi topp leen feneen muy yi muy ci yeneen dëkk yi nga xam ne dañu am le principe de la juridiction universelle ci yenn crime y' a pas que la CPI ça aussi il faut ñu xam loolu juriste yi xam nañu mais ci diggante bi madame la première dame en tant que maire ñun ñëpp ñun ay jigéen ñi fi yor ay doom bi ñu sukk jur xale yi ñu rey téyeel loxo président de la république ne ko mu arrêté lii nga xam ne mësuta am Sénégal ba Sénégal bi Sénégal mosu ñoo toll à un niveau aussi bas de notre démocratie musulaam waxal ak moom personnage privé nga ne ma du ma ci wax waaye nag l'heure est tellement grave yow ci sa bopp mi nga xam ne vous êtes une mère on a appelé toutes les mères à venir manifester toutes les femmes toutes les grand-mères toutes les jeunes filles borom kër yi ñëw parce que bu sa soxna génn xanaa doo doo ko bàyyi mu dem moom kenn xale yi ñëw ku sa yaay génn xanaa doo ko bàyyi mu génn moom waaye madame la première dame da nga am une responsabilité première tuddee wuñ la première dame pour rien de c'est pour que aussi nga jox les conseils au président de la république nga yegg nga téye loxoom moom li ko war du xeex ak ñun je ma me battre laa dégg moo wax keroog non non non non non waroo xeex ak sa peuple monsieur le président de la république waxoon naa ko amul benn président au monde boo xam ne am na armée wala police wala gendarmerie bu mën a dox digganteem ak askanam. loolu du sa cër bu battre avec nous du sa cër mën nga nag ci politiciens yi nga set nooy waaye se battre avec votre peuple tel l'a vu depuis trois jours loolu du sa cër monsieur le président la république encore une fois tegal bi yëpp ci suuf tegal procès bii nga xam ne kenn ci Sénégal nanguwul ni procès bu jaar yoon ñaari chef d' accusation ñu dàq ñaari chef d' accusation borom dafa a ñibbi bàyyi candidat yépp bokk nga libéré suñu xale yii ci mbedd mi ñu def enquête seet ñi nga xam ne ñoom ñooy les fameux nervis parce que nag on naa des indices aussi danañ leen topp ba xam ñan lañu ba ñoom it ñu mën a répondre devant la loi mooy dëgg te nga bàyyi ñun ñi F24 aussi di ngay solo salle bu ñu mën a réunion yi sax mënu ko ñu ne dañuy dialogue waaw dem ci lieu privé privé parce que am amuñu am lieu public nga yónni gendarme yi pour ñu génne ñëpp sànni leen président bu fekkoon ne noonu lañ def ak président Abdoulaye Wade defoon 2011 kon doo yegg si fii kon doo yegg si fii dañu la woo commissariat central ci blanchiment ba ñu gisulee dara dañ la bàyyi nga dem noonu nga waroon a doxalee ak Ousmane Sonko opposant nga woon moom opposant la ku ne nekk candidat ni ma ko waxee ñi bëgg a nekk candidat yëpp nekk candidat 2011 y'avait 12 candidats yow la yàlla fal jaarale ko kon li nga xam ne mooy sa cër te vraiment ñun nag mosuñoo xalaat ne dañ yegg si fii ak yow mosuñu koo xalaat su ma diggante ak yow nag mën a xaj nañ waaye man ak yow la woon waaye sa diggante ak les sénégalais la jeunesse sénégalaise tout particulièrement bi nga xam ne deux mille 2011 ñoo la fal suñu meeting 2011 yi y avait pas de jeunes de plus de 30 kooku maa ci teg ma bët ñoo la faloon noo ñëw 10 ans après ne da ngay xeex ak ñoom munoo ñëw 10 ans après ñu feesal les prisons de jeunes munoo ñëw 10 ans après la nga doon xeex contre le président Ablaye Wade muy troisième mandat nga ne da nga koy indiwaat monsieur le président l'heure est grave. salaamaaleykum F24 maa di remercier coordonnateur fii seen kër eh, comme j'ai l'habitude de dire ñun ay soldaaru réew mi chaque fois que vous besoin des locaux. n'avait pas besoin d'autorisation maa ngi am xol bu metti ci jële ci kàddu di wax ci situation bu réew mi Macky Sall war na am gàcce fu mu toog parce que tout simplement dafa organiser dialogue le mercredi dëkk bi tàkk le jeudi c'est vrai on nous parle de violence cette violence elle est chercher ci dialogue bi Macky Sall def parce que kaddu yu violente ces paroles violentes yi nga xam ne dégg nañu ko ci dialogue bi Macky Sall organisé la jeunesse sénégalaise delloo nañu ko parce que ay sëriñ bu ñu taxawee naan ko gëmmal te dóor ñeneen naan ko booy gëmm te dóor na ngay xoolaale te dóor jeunesse bu Sénégal wan nañ ko ne ko bu ñu danaan fay fayu c'est pas pour d'accord ci yenn ci situation yi xew moo tax may wax ne nañu bàyyi di yedd jeunes yi nous avons une jeunesse consciente ñoo xam ne ñoo nu gën a conscient des enjeux de l'heure ñi génn dans une manifestation façon bu nekk ngay am mais ñoom ñëpp mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk cette jeunesse opprimée cette jeunesse sans espoir ñoo génn jàkkaarloo ak Macky parce que nag réew mi maamu kenn moomu kenn donn ko dégg nañu ko muy wax ne nañu ko ko ñaan ci njekk non par force la te wan nañ ko ne ko par force lay doon moom du def troisième mandat et les Sénégalais sont déterminés à lui faire face j'interpelle les forces de défense de sécurité parce que nag on va se battre comme ni ko suma naata ngay waxe léegi pour qu'il y des enquêtes mënuñu comprendre force occulte yi ñuy wax mënuñu comprendre force obscure yi ñuy wax parce que nag dafa mel ni saaga suñu ay force de défense et de sécurité mënuñu 2021 ba léegi ñu ñuy wax ay force occultes malheureusement ñooñu ñu tuddee force occulte ci imaginaire u Macky Sall parce que li mu bëgg mooy jouer sur la stratégie d'apeurer les populations Macky Sall xale yi génn ci mbedd mi li ngay tiitali nit ñi coup d'état armé nangam sangam booy yi xamuñu ko parce que dunduñu ko nit ki loo ragalul loo xamul mënoo ko ragal ça veut pas dire que dañuy woo fitna ci réew mi mais kenn dong moo yor clé jàmm ci réew mi actuellement mooy Macky jàmm jooju mooy taxaw pour wax réew mi ne leen bëgguma troisième mandat duma def troisième mandat donte bëgg na ko moo tax ñu génne ñun carton rouge pour lui dire que ñiy xëccoo ñëpp war nañoo bokk ba mu des yow Macky Sall waruloo ci bokk kon tentative yi muy def pour éliminer ay candidats notamment cette instrumentalisation de la justice il faut que ça cesse Macky Sall réew mi moo moo ko donnoo ko élection yi di ñëw ku ci nekk ku ci am yéene def ci war a bokk ce qui est en train de se passer ku nekk ci ñun ñi xamoon na ne fii lay mujj mais nag am na ñoo xam ne bu ñu reppee ci xare lu ñu jiñ dañu koy xet yaakaaroon na ne lii fi am du fi am yàgg waxoon na ne lii fi am dootu fi am mais le peuple est souverain cette jeunesse elle est opportunité bi ñu am pour ñu dégg leen nañu leen bàyyi xel bu kenn ci politiciens yi yéen ñi toog fii yaakaar ne yéen a tax ñu jóg ki taxaw ci buntu Auchan bi di ko dajji kooku xeexul pour ñun ñii dafay xeex pour survivre ceeb ba mu fa am wala dëwlin bi mu fa am nangu ma ne daf koo war a def mais mun naa expliquer lan moo tax mu koy def sécurité bi ci jiitu mooy fexe ba sa doomu réew nekk ci situation bi gën sécurité bi ci jiitu mooy fexe ba xale yi ñu am liggéey ngir mun a tàggat seen bopp ngir mun a faj seeni soxla sécurité bi jiitu mooy fexe ba démocratie lal law ci réew mi te démocratie pour mu law faw liberté jiitu sécurité bi jiitu mooy fexe bañ a noot démocratie li xew ci F24 mercredi dernier ngay dialogue nga ne yow yaay dialogue keneen du dialogue mbéte buur ñu dem ci siège grand parti nga fekk leen fa génne leen démocratie day noyyi danga koy bàyyi mu noyyeeg bakkan bu noyyeewul bakkan noyyeeg gémmiñ boo fàttee gémmiñam mu yëngal ay loxoom bu yëngalee ay loxoom fitna rek lay doon donc le seul et unique responsable de ce qui est en train de se passer du kenn c'est le président Macky Sall ku artuwul nag di nga ñi war a wax nañu wax ak moom xëy na sax wax nañu ak moom mais dafa dëgër bopp boo ko xoolee mu ne ñum noonu noonu la dëgëree bopp et lu mu matt day dagg mais dina xam ne ñu on est déterminé on est engagé lu ko lu mu ko jaral moom pour yàq réew mi na ko jàpp na ko na ko na gëm ne jaral nañu ko ñun aussi pour defar réew mi je